dafa rek dafa mer rek daa sonn rek Aba daa rek Aba Aba gars yi ne Aba gars yi ne da ngaa sonn super. daa sonn. mais tey bi nga nekkee bi nga nekkee jeune boobu nga fi non bu baax sax mais tey woon nii daanaka fii la njàngee mais est-ce que yoon aussi autorité yi dafa di terrain bi teg ci loolu loolu ñu ngi si loolu ñu ngi si parce que daanaka man fii sayer kër la non comme ni nga waxee lépp fii la commencé ci booba daabo après petit sant yàlla sama coach bu fi jugee tamit sama benn yor ko et puis voilà am na ko donc daanaka ñëpp fii lañ fii lañ fii lañ commencé. mais donc am nga ay partenaires yoo xam ne. waaw loolu ñu ngi si loolu ñu ngi si loolu moom projet boo xam ne ñu ngi pour def loolu quoi parce que daanaka ñun fii lañ am. bu ñu ko defee c'est pour jouer pour pour pour quartier seen kër gi la et puis voilà je pense que ne moom lenn lu mu leen delloo loolu. donc loolu c'est dans la tête ñu ngi ci te incha allah yàlla baax na. dafa mel ni bii moom adhéré na ci Famara Diédhiou parce que gis nañ nga occasion yi le gardien était sorti c'est pas évident pour scorer mais. mais daf mel ni mi ngi sa yaram ba tey ah. waaw mais noonu la maa ngi moom dañuy góorgóorlu rek. waaw ah, ah. ah. mais yow aussi comme moom gis nañu suuf si bi nga commencé sonal aussi parce que li ngeen fi gëj la. saa yu ma ñëw si suuf si la entraîné. yow voilà yow waaw si kaw man ça fait longtemps entraîné ma si kaw te si suuf si laay mën a entraîné comme ça bu ma ñëwee si kaw tëj tëj bi kenn du ma gis. est ce que mën nga ñëwaat sa saison ren en Turquie. waaw ren macha allah. waaw équipe bi depuis l'existence de l'équipe, 103 ans nous avons place. Mhm. te dernière journée Europe. le fait que nous avons gagné coupe quoi. bu ko dernière journée qualifié mais finalement gagné coupe te le 6 jël sixième man cinquième. donc mais saison bi gars yi le fait que battre record le fait que c'est la première fois dans l'histoire du club ñu yegg si cinquième place di ñaan saison prochaine la ñu terminer une qualification. mais qu'est-ce Kassim Passa dañu xaw a tiit parce que nous ngi dégoûtons un peu en France nous ngi dégoûtons ça même en Angleterre. <laughs> waaw lépp sant rek lépp sant rek bien vrai que voilà depuis mu ñëw fa bi mooy sa euh, maa joué deux saisons et demie, tu vois dans mois janvier 2022 j'ai fi signé bien vrai que depuis mu ñëw fa bon on voit l'équipe voilà. da fekkante leen tukki yéen ñaar. si si première année mooy année bii gars yi jëlee ko càkkal na ma médaille bi sax. waaw après eh. match. Ah, ah. football ñu naan ñoom maa ngi jógee maa ngi jógee ah, direct ñëw foofu na ma ko andil. na mhm. ma ko andil jox ko mu sol ko waaw ñu ñaar yëpp sax. mais loolu moo wane Sénégal yi benn lañ fu ñu mun dem. mbirim Sénégal ñëpp a gagné coupe bi ñëpp a gagné coupe bi ñëpp a Famara gagné ko ko Modou Fall gagné ko ñëpp a gagné coupe bi Sénégal la moom bu dugalee wala man mu dugal wala ñëpp benn lañ quoi donc loolu moo tax mu bëgg la xëcc ci fële Angleterre. ah mun na ne de bu ñëwee ma jël de. parce que moom bu nekkee ci côté bi da koy andi de. Ah, dafa leer dafa ah. jox dafa jox mu dugal parce que. alam nëbu alam nëbu. alam nëbu. waaw mais coach mais coach. ñu ziar. mais coach waaye. daa sonn rek daa sonn daa sonn rek daa sonn. booy continué. si si da booy continué. da booy continué non man xaw ma 10 minutes sax mënuma ko ci li ma am nii damay ma ko def. sama <laughs> biir lu mu toll. kii Fane. ah Modou Fall international la. Kassim Passan. Lamine Famara de Kassim Passan. Kassim Passan. Kassim Passan. c'est bon Modou Fall de Turquie. sa français bi nga sol nii sa français mooy Sénégal bi Fatick. Modou Fall de Turquie c'est plus simple Modou Fall international ami de Famara Modou Fall de Kassim Passa Kassim Passa merci Aba Modou Fall de Kassim Passa Mame Fatou Mame Fatou Ndoye elle a rigolé c'est Modou Fall de Kassim Passa on connaît le nom on faisait juste semblant c'est Kassim Passa Modou Fall de Kassim Passa c'est bon c'est bon c'est bon ambiance. <laughs> mu ambiance mais mais da ngaa sonn da ngaa sonn nag moo tax yéen. moom billaay wallaay sonn ma dama xam ni. mais affaire de groupe la affaire de la su ma meroon ne ku kenn toog man leen jox. man dinaa booy fii de fii de. xam naa ma lay jox ma kenn sànni may bi ñu ñëw benn amaat ba kenn comme la presse bi ko amaat kenn kenn ko amaat ko leen donc yéen do sele ki mo xay ci abalon ma la do sama seex de eh boy sama seex de sama seex boy boy ki sama seex ki dafa jàng na jàng ma boy boy fa eh Famadal s'il vous plaît on vous attend là on vous attend merci beaucoup Merci. Merci beaucoup, Fabra. Action irréférement. Bonne Merci beaucoup, Fabra. Merci beaucoup. On continue, on continue. Ils, sont des frères, hein Ils se ressemblent. Ils se ressemblent, s'assemblent. C'est les pionniers

ASC bu jëlee ñam nga a ñam on ku nekk lii lay ñaan ah ñoom ñoo ko seede de Famara ba am ko ko ne kon da digga tooy nee nañu Famara c'est un homme généreux qui n'oublie pas nee nañu saa yu jógee extérieur li muy njëkk a xalaat moom mooy koñ bi mu dëkkoon nee na dañ fa dëgg tànk def porte à porte xool leen ko tey en tant qu'international, participer ci mondial de battre au fil du football Anna na ay moromam yoo xam ne soo leen woowoon tey gox ba nu dëkk ak koñ ba nu dëkk ba leen gëj gis ak léegi kenn xamul ñaata at la Famara toujours reste toujours égal à lui-même mi ngi nii. lébu la nag géeju la sant de waaye lébu la kenn ëppale ko ci lébu gi di di diggante jéeni biram ndaw. diggante déeni Mali Gueye ba keroog ngay ñëw ca déem la preuve en est que gisuma si dem Kaay ba keroog dem Mbot ba keroog dem Xambiya ba keroog dem Nduufeen Yoof ñoom am nañ fa ab cër bu la preuve en est que Fatou Diouf a ngi nii ci kaw Fatou Diouf a Fatou Diouf ma nga xam ne moom moo nekk ca Yoof ay mbokkam a ngi nii sant Ndoye ñaanaa ngi nii sant Ndoye ay seen denaat ca Yoof kuy lébu mbokkam nga loolu lu am la damaa dem keroog kan moo ma mën a seede billahi ay seen njàmbur moo doon football ak Casa Sport fa ma toog la xalay daw wër daal di wàcc ñëw ba ci man na ma peer ma gerte daa koy ñuy ne ko yow yaay kan mu ne ma man maay Marie Diédhiou ma ne ko ah? mu ma ma Famara ñoo bokk benn papa mais yaay moo ma yar Famara envoyé wu ma la photo bi loola ca Ziguinchor nan ma ko waxee ca Casamance ma dem jël vol di dem dem tuuti ñu téléphoné ma woo ma ne ma ma ne aan ah, ñu ne ma sa doom ji mi ngi nii ci aéroport bi mais dafa raté vol bi may leen dencal ma leen ma ko ba beneen vol bi ñëw ngeen dugal leen ma ko ci moom Famara ci Sénégal moo ci ëpp ay fans dafa am ay fans Lebu am ay fans Joola am ay fans mag am ay fans ndaw am ay fans jigéen te saa luy football saa luy jël selawu lay def ndax moom la ñuy daaw ak seen xol kon ñu ngi ñaanal Famara wax naa ko de nee naa leen dootuma juboo ak équipe nationale. dootuma juboo ak dirigeant ya dootuma juboo ak kenn fii ak Famara Gningue fii ak Famara Gningue.